ginaaw bu ñu nuyoo kilifa diine yi kilifa diine yi bo limé lim nga Njaasaan Tuuba Tiwaawoon ak fep ak maam Limaamu Laay Kaolack kilifa diine ci rew mi ñu leen nuyu ñu nuyu tam ki nga xam mom la yalla dogal mu nekk ci bopp rew muy son excellence président de Macky Sall de nuyu sama président bi nga xamanteni ni mo nekk euh, assemblée nationale de président Mustapha Niass di ci teg sama président groupe Aymérou Gningue mm-hmm. de nuyu député yëpp de nuyu imam ratibou camp ma nga ko di nuyu population mu ngi ko góor jigéen mag ak ndaw di nuyu daal ñi nga xamante ne nii mooy Dakar ak fi teew tey. ak seen kilifa ga ne ci kaw. loolu laa am li may suñ jàll ci nuyoo pour le moment. ba dinaa ko dabwaat ci biir. absolument alors honorable député nga actuellement yaa ngi ci vacances parlementaires laata seen session di en octobre sa vacance ci lan nga ko consacré yaa ngi ci yëfu askan bi wala yaa ngi ci diggante hôtel yi. waaw xam nga boo nee vacances dafa mel ni dafa da nga jël congé te man defe naa jëluma congé defe naa ba ma nekkee juróomi at ci bopp nga ko ba léegi jëluma congé lu tax jëluma congé damaa volontaire woon ne alors Ngexo moom ma ñor. damay liggéeyal sama askan. kon nag noppi noppalu ko sama yaay dana noppi moo ci gën comme noppeegunu nag mënagunoo noppalu ko. assemblée jël nañu vacance mais ça ne veut pas dire que jël nañu vacance askan wi. ndax comme askan wi ñu yóbbu assemblée ñu jël vacance foofu. askan bi ñoo ñu fal ci dëkk bi te soxla askan bi jeexagul soxla askan bi matagul kon vacance daal gëm naa ne man mii daal bokkuma ci ñi nga xamante ni jël vacance. Mm-hmm. moo tax tey maa ngi sama commune di xool nu may def ba làmp ji gën a yokku di xool nu may def ba gën a développer commune bi. di xool nu may def ba nga xamante ne commune bi li mu ñàkkoon wala mu sori woon jege ko. Mm-hmm. ci yooyu daal ci laa ne di liggéey di ci dem ci ministère yi te maa ngi ci am yaakaar bu baax ci loolu. moo tax vacances yooyu nga wax daal xam naa ne daal euh, nan ko def daal ba nga xamante ne daal congé moom am na xam am naa yaakaar ne du wees. Mhm. ndax du daa mën a du wees parce que boo noppee ci soxla askan bi xam naa foofu da nga mën a jël congé mais noppee bu ñu soxla askan bi. kon vacance bi teel na. Mhm. ba may tàmbali sama njëlbéeni kàddu maa ngi naan député nga waaye tamit yaay maire bu commune bu Ngexoox. alors euh, émission bi xaw na guddee mënoon nañ ko njëkk a tourné ba muy teel parce que da nga nekkoon ci diggante ay dem ceet ay dem ngénteeg yooyu noonu wër un peu commune bi alors ban rôle la ci sa rôle député là, wala ci sa rôle maire la wala en tant que politique il fallait que nga def yooyu noonu ngir sàmmanteeg askan bi. Wa, xam nga ndox moom du bàyyi yoonam man ba may commencé ci dëkk bi ci année 1900 2014 ba may laaj dëkk bi askan bi dama leen a jege woon. jegas askan nak moy lan moy nga bokk ñu seeni seeni banner bokk ñu seen nakar dimbalé len ci boo leen dimbalé mm-hmm. deglu len leen bañ a jafe ci ñom ndax lu tolni am xew nga am ko nga ñew déplacé wu ñew ci nit ki neko ah man dama bëgg samam tew nga nga xew nga tew fa am naa yaakaar cër bu reuy la yow nak mota tay ba nga ñewé xew yi bari lool té bu ci nek won na fa dem té bo ci dem di nga ay cadeau te kàddu boo ci def ñoom dana la tontu. loolu moo tax nga guddee fii tey mais loolu tam da di farat si ñun ndax askan bi bu la nee damaa bëgg nga ñëw sama xew nga dem fa jël parole sagal nga ko ci biir mbokkam. ndax bu nu fa jógee dana naan ah député maire bi de ñëwoon na ci xewu diw te loolu rek sag la kon nag ñun nag ci loolu ci la nu yàgg di dox ndax lu tax ba may commencé jël dëkk bi loolu dama ko daan def mooy kon ne ba léegi loolu ba tey liggéey bi nga xamante ne mooy engagement yu ñu def pour dëkk bi ñu ngi koy matal boobu mu mat sëkk ndax danañu xëy bureau de huit heures wala boog bu nu naajee xëy dana fu nekk ba nga xamante ay quatre heures cinq heures la ñu doog a ñibbi si suñu kër yi añ ci lan ci liggéeyal askan wi fii ci maire bi donc loolu yàqulu dara ci dëkk bi ndax boo xoolee eh, ñun Ngeko ba ñu koy jël jafe-jafe yi bari woon na lu mel ni ndox mi amoon na problème mu château d'eau yàlla président Macky Sall am nañu benn château d'eau boo xam ne mille cent mètres cubes la

il faut ci boo ko déggee mooy yi war nga mën a xam ne tey liggéey bi dafa war a gaaw te aw tegu ci yoon ndax coraag mooy raay. Mhm. te raay xam nga day jub. fas bi mooy lu gaaw. Mhm. kon lu jub te tegu ci raay rek am naa yaakaar ne loolu dana baax moo tax tey jii moo tax son excellence président la Macky Sall loolu mu wax dana ci cinq war nañ cee mën a def loo xamante ne ni raw na suñu njorto parce que umpale woon ne alal jaa nga dugg ci dëkk bi alal ji dana ñëw ci dëkk bi alhamdulilah rabbil alamin mhm. mais la ca topp mooy fan koy war a fan koy war a def commencé nañ ko. ñu koy def alal ji yow wóor na la ne tey Sénégal bu ne alal jaa ngi ñëw dégg ngeen pétrole li fi xamoon dafi amuloon am na fi muy lu mel ni pétrole bi lu mel ni gaz bi lu mel ni or bi lu mel ni loolu xam nga tey euh, yàgg nañ fi jamonoy Senghor gisuñu ko woon. Hmm. jamonoy Abdou Diouf gisuñu ko woon jamonoy Abdoulaye Wade gisuñu ko woon. jamonoy Macky Sall ñu gis nag richesse boobu yëpp war a ñëw war a dugg ci dëkk bi kon fast track bu amul si juróomi at. alal jooju war a dugg ñu war koo liggéey delloo ko ci askan wi am naa yaakaar ne euh, du baax moo tax ma ne gis ngeen autoroute bi nga xamante ne nii fa ngeen jaar ba ngeen di ñëw léegi fii mu ne 35 minutes yaa ngi Dakar 10 minutes ay l'aéroport de Diass illaa Kaolack commencé na illaa Touba gis ngeen ko accident yi kañ

moo ëpp accident daawaati jéeg loolu war na ne euh, autoroute bi wàññi na lu bëree baree baree bare ci accident yi daan xew xam naa duggoo ci sax maa ci dugg. ci mhm. bokkul sa mhm. mais daal li ma la mën a xamal mooy euh, ñun député yi la ñuy xaar ci voté loi yi parce que xam naa ne président Macky Sall voie loi bu ñu jox njëriñ nga ca. Mhm. ça ne veut pas nag day ñëw rek du réfléchir waxtaan ci. xool bu dee ma nañ koy ajouté mbaa ñu war ko mën a wàññi mais loi boo gis ma Sall jox ñu ko président Macky Sall jox ñu ko njëriñu askan bi la njëriñu réew mi la parce que lu ko tax mooy ba nu waxee parrainage am naa yaakaar ne loi boobu ba nu koy wax nañ ñaa ngi doon eh, sikki saaka ñu naan parrainage bi baax nag parrainage bi baaxul mais askan bi tey dem noonu dem dem ba xam ne ñu ne ah attention ndekete kat parenage bi baax na mm-hmm. nit ñi daawuñu voté imaginel présidentielle 6 millions quelques voté mosul am Sénégal Sénégal ay 3 millions ñoo daan voté parce que lu tax daawuñu voté c'est parce que euh, nit ñi dañ daan rang rang boo xam ne dañuy tayal sax ne du ma wote ji toog seen kër yi wa illaa boog ñu warang ba minuit vote gañ na fa am mais bi six heures rek bureau yi tëj na lu ko waral mooy parrainage bi alhamdulilah rabbil alamin bo loi boobu baax na loi aussi bi nga xamante ni moo jëm ci référendum bi loolu gis ngeen njëriñ li tey kon loolu yëpp tey mhm. askan bi yay na leen ñun ba nu voté loi yooyu yëpp parce que loi yooyu voté ko du gàcce si ñun tey parce que jural nañu ndam loolu moo tax tey le président de son excellence Macky Sall mm. suñu indi leen loi dana ko ko seggal yokk ci wala boog ñu ñu conseillé ko ci ba loi bi méngoo lu nga xamante ne moom la askan bi bëgg ñu ànd voté ko ànd liggéey ko ànd travail ci ba loolu njëriñu askan bi jóg ci ci ci loi yëpp nag. ci sa kaddu léegi da wax waxu alal juy ñëw tudd ressources naturelles yu ci mel ni pétrole yooyu est-ce que dinañ am yaakaar ci xaalis bi ni mel bu ñu sukkandikoo ci kàddu Sonko yi nga xamante ni ñu ngi naan dañuy salfaañe contrat yi ñu leen neex lañ koy signé ba léegi Sénégal amagul yaakaar ci li ni mel bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moo di doxalin bi. xam nga borom gémmeñ guy naaj dox jàmm ndax Sonko su ma doon moom am naa yaakaar ne danaa sàmmat samay kàddu parce que wax ju bari ji jaru ko jëf la war a def fu mu ne nii yàlla mooy fal yàlla fal na président Macky Sall bu doon Sonko dëgg dëgg bëgg na réew mi danañ ah yàlla mooy fal fal na président Macky Sall président Macky la naa la loxo kaa ñu ànd liggéey pétrole bi war a feeñ ma jàppale la ci or war a feeñ ma jàppale la ci.

président de Macky Sall na jege ki nga xam ne yàlla moo ko fal te cinq ans incha allah rabbi yàlla na ko yàlla may may wér mu mottali ko su ko jegee dana sax mu am expérience mais saaga yi muy def xas yu muy def accusation yu muy def du ko amal benn njëriñ lu koy amal njëriñ nit ñi naw ko mooy mun ah président pare naa jàppale la te bu jàppalee président am naa yaakaar ne na ko naw nan la koy jàppalee parce que jàppale na kii c'est pas nga ñëw nga ne ko maa ngi sa ginnaaw politiquement mhm. mais jàppale ko mooy nga am sa idée yu rafet bu dee am nga ko nga ne sama idée rafet la mais kon nag man li ma jàpp mooy amul ay idée yu rafet amul ay idée yu jeeg amul idée yuy a réew kanam loolu moo tax tey mu am argument boo xam ne xaste la saaga la accuse nit la pour def loolu dana ko may mbooloo mais loolu da koy gën a xañ mbooloo mhm. teewul ne am na député ci assemblée nationale ba mu demee ci li nga xam ne moom moo di élection législative yi est que askan bi ki nga xam ne day nekk ci lu dul noonu dinañ la wóolu ba dénk la ay baat ba nga am député ñoom réew mi la ñuy wax xam nga am député yomb na parce que pléforage ngi fi leneen a ngi fi mhm. ndax gis ngeen parti bu jóg rek fii ci réew mi buy commencé bees dana am mbooloo mais tey laa wax boo jógee nit ñi xamagun la mhm. nga ne damaa bëgg defar wala boog damaa bëgg nangam nga ñëw di nga am am riir mais riir moom boo ko amee ba noppi boo demee ba ca kanam nit ñi dañoo xam yaa yaay kan parce que yàgg bàyyiwul dara parce que yoon wi kat dafa gudd de. bu fekkee dangay ngay jóg rek mayum riir may sa bopp riir may sa bopp buzz. di def cinéma boo tawee ci rajo yi xam nga tey jii man mii suma ma taxawoon ci rajo yi rek may saaga di xaste di xas Macky Sall léegi mbooloo mi wër ma xam nga lu tax li ne duñ kumpa li ci xew mais bu demee ba ci kanam ñu ne ah kii daal ab dof lu bu ab dof la wala kii daal wérul wala kii daal war nañ koo faje loolu nag c'est important loolu moo tax tey waxuma ne moom day war nañ koo faje mais xam naa ne moom daal li ma ko doon conseillé mooy pour mu bëgg réew mi ëllëg pour mu bëgg am dara ci réew mi ëllëg jikko ji mu yor nii na ko changé ban jikko la war a yor jikko ji nga xamante ne nii mooy comme les américains américains bu politique jeexee jeex na xam lu ci topp

seet nan remplacé remplacer président de la république Macky Sall Nous ngi naan tey jii ñu ëpp si ñoom ci seen compte bopp la ñuy liggéey liggéeyatuñu président de la république. waaw man nag loolu man dafa sentir guma mhm. ci le président ci ci nga xam ne lay dans le benn bokk yaakaar parce que d' accord yàgguma benn bokk yaakaar mais mhm. ki nga xam ne moom lay àndal. mu doon suma kilifa ci benn bokk yaakaar doon coordinateur du département de Mbour. Mhm. kooku sax il faut nga même ma nuyu ko muy le ministre des infrastructures monsieur Omar Youm. man de li ma sentir muy def mooy liggéey rek li mu sentir mooy def nañ leen jàppale président li mu sentir muy def nañ leen accompagne président mhm. gisuma beneen ambition bu mu am bu dul ambition ne président de la République dañ ko liggéeyal

te lu tax bokk man ci parti am mooy feneen laa faroon maa ngi àndoon nag le président Abdoulaye Abdoulaye Wade. ba ma ànd ak moom itam ba nga xamante ne 2012 gañal naa ko fii ci Ngeko mu fépp ma gañal ko fii ci Ngeko ba ma ñëwee itam. ama ñoom ne ma kaay jàppale président Macky Sall ma ne ko monsieur le ministre mu ne ma waaw ma ne ko man gor pire laa lu tax ma la ko mooy man du dem ci nit pour intérêt du dem ci nit ngir xaalis damay gis si nit boo xam ne am gis naa parce que gis naa gëm naa ne liggéeykat nga président aussi gëm naa ne kat la mais nag mais ma ma gañee mairie bi suma gagné ba nopi ma ñëw talal président loxo Macky Sall loxo su ñu nan and ak la liggéey mhm. ma gagné maire bi ma talal ko loxo talal ma loxo maa ko ne président parana naa jàppale la mu ne ma loo soxla ma ne ko nee na ko bu ma may auto bu ma may xaalis bu ma jox dara xam nga ma bëgg mu ma ma ne ko la am tabaxal ma ko mu may ma maire bu bes bobu Omar Dioum mu jaar ci Omar Dioum mhm. mu may ma château do bi mu jox ma ay financement mu defal ma tali gérow tali tentuwaat dana ma ko defaral ak yeneen tali ak yeneen yoo xamante ne mu ngi war a ñëw ci dëkk bi mais lii laa gëm ci Macky Sall président Macky Sall te da def fii ñu gis comme def na ko ñu gis nag te ñun liggéey moo ñu tax a jóg askan baa ngi gis boppam ci moom ku u ñu joxañ kooku la ñuy mën a àndal. Mhm. mais pour que nit ñi dañoo dañoo bëgg ñeneen bëgg loolu daal dama defe ne daal waxu par exemple daal waxu sénégalais la rek wax joo xamante ne amul benn ndëgër laay parce que man gisuguma kenn nag ku taxaw déclaré maire Macky Sall bu demee dama koy remplacer gisuguma ko de. te déggu ko ma ko itam. Mhm. xam nga nit ñi nag léeg nga demaat diw daa diw daa bëgg ak diw dafa nangam nangam mais yooyu ay accusation la te yooyu am naa yaakaar ne bu buñ ko moytoo

loolu moo tax mënu tax a jóg kon bu ñu joxee li nga xam ne mooy commission technique ñu indi si suñuy xalaat ministre yi yokk ñuy wàññi ñu watee budget bi kay fonctionné nga ñëw delluwaat sa mairie. Mhm. man su ma xëyee léegi su ma amul plénière maa ngi bureau si def si may signature daal di dem waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal. Mhm. jël samay audience. bu fekkee ne am na urgence urgent te ñoom ñu nekk Dakar a jóge Dakar ñoo ngeexoo parce que bu fàtte ne waa Dakar ñu bëri ñu ngi fii am fi ay kër dama leen di recevoir à l' assemblée mhm. ci temps wu yi may jël ci plénière yi kon mënul yàq dara sama liggéey parce que guddi gu ne fi lay fanaan te su ma ñibbisee guddi su ma yeewoo delluwaat loolu tey waa dëkk bi xam naa ne Dakar daal la ma fa fanaan fii ba ma ñëwee 2014 ba léegi defe naa matul ñaari yoon wala ñett yoon yoroo fa kër yoroo fa aw ma fa kër am naa fa kër mais aw fa kër goo xam ne dama fa loo ci dëkk fa mhm. su ma neexoon am ko mais maa nga faa kër nag su ma neexoon ma naa fa am logement itam mais mhm. man fii laay fanaan toujours samay fii samay waa kër ma su ma bo fu mu nekk nii su ma xëyul mairie wala xëy ma fenn soo ñëwee ci grand place fekk ma fa soo ñëwee ci marché bi fekk ma fa soo ñëwee ci mbedd bi fekk ma fa boo ñëwee sama kër fekk ma fi boo ma soxlaa gis ma man daal sama gis-gis progressivement jafewul. tout à fait alors euh, ci élection locale yi ñuy dem ci dialogue bi nga xam ne moom la dialogue national bi politique bi bokk na ci bëgg-bëgg maire yu bëri mooy ci élection yi ñu jëm ñu soppi falin bi nga xamante ni moom la maire yi ak président conseil départemental yi maanaam ñu def suffrage direct c'est-à-dire yaay tëdd liste bi askan bi yow la ñu tànn ñu fal la directement loolu est-ce que ànd nga ci bu dee waaw lan lay corriger loo xam ne da doon am te nit ñi.

def taam def léppam ba ñëpp fal ko def liste la ba ñëpp falko ko yi def ay lobbying di campagneal keneen ci biir koo xam ne mosul campagne deful alalam deful dara pour ñu fal ko kooku dem jënd nagam ba a feete jour boobu ba xëy dem maire yi ñu ne kan moo bëgg am ku tàllal koo xam ne xalaatul woon sax tàllal ba mu nga xam ne moo jiitu woon liste ba di politique dafa dafa waaru ci yàlla ñu tàllal mu gañe ko ci biir mu ñàkk maire bi ay waa këram yëpp di jooy loolu woor la wor googu nag vraiment bu nu ci président dimbalee ba nga xamante ne tey kuy dem tedd liste wor yooyu du ci am am naa yaakaar ne dana baax parce que loolu da parce que loolu gisoon nañ ko fii nga gañe ba noppi gars yi def ay lobbying. Mhm. wala nga gañe ba noppi affaire bi jaxasoo wala carte gi jaxasoo léegi nag dafay day permettre ku am doole dem élection. ku amul doole doo mën dem élection parce que xamuloo tax. Mhm. parce que boo ne man maa bëgg a maire ñu amul doole bëgg a maire te toppoon sa ginnaaw te ñoom seen xalaat lan la boo ne boo gañee ñu war la ñu tey danañu jaaxle. Mhm. parce que doo danañ jaaxle mooy pexe yi ñu amoon pour doon maire pexe boobu Macky Sall da koy da koy président da koy tëj te loolu am na fi du lu ne amul. Mhm. benn ci loolu et puis c'est logique ki nga xam mooy tëdd liste na dëgg dëgg dëgg dëgg battre campagne jël alalam. ne maa bëgg doon maire ñëpp topp ci ginnaaw bu ñu demee bëgg moo war a doon maire nag. bu ilaa carte gi na leer au départ ku bëgg doon maire nga ne kii laa bëgg kii ma man ba may dem fii législative ba may dem sama élection ma ne ma ne ma def euh, coalition bu ne waa taxawu askan wi dama leen ne man ku bëgg doon maire fii bu mu ñëw fii. ku ma soxla mooy daal ku topp sama ginnaaw. Mhm. ku topp sama ginnaaw bëgg doon maire xajoo fi automatiquement laa ko au départ. képp koo xam ne bëggoon nga doon maire jegatoo ma am na ñoo xam danoo dem feneen. Mhm. mais ña ma àndaloon keroog ba nu nee maire la nu mais ba nu dañuy fal maire à ñëpp ñoo tàllal seen loxo ne kii la ñuy fal maire na ko au départ. Mhm. xam nga loolu moom dafa yaa na affaire leer na nañu leer na au départ. Mhm. affaire bi bu leeru au départ dafa naa dana noppal ñëpp dana noppal conseil yi dana noppal aussi ki nga xam ne moo moo battre campagne dana noppal aussi askan waa dëkk bi. mais bu jëkk ba da nga daan gis ku jël ay millions. ngay jiw conseil am na benn année boo xam ne fii dañu jël conseil nëbbu ji leen somon nëbba leen pour bañ leen neexal parce que kii amoon 14 conseils kii am 14 conseils. Mhm. te ñu te 46 conseils la ñu 46 euh, euh, conseils je crois bien. Mhm. kii am 14 kii am 14 ñaata la. non 26 20 28. non 14 mais comme dans 14 dafa naa 30 wax ma 36. Mhm. xaw ma 30 yu demee noonu benn conseil manqué woon pour kenn ki mën a gagné.

député nga mais question mairie yi day parce que dafa am solo euh, li ma bëggoon a laaj est-ce que tey jii euh, gis nga né élection locale manam gox yeeg gox-goxaan yi wax ça doit être une affaire de parti wala d'abord une affaire de que dëkk sa gox ça veut dire que Pape Diop Pape Diouf bi dëkk bir ngexox amul parti bi lu ko wara a wax nan ko yaay def li way yaay def askan bi ñom ñofa nek am nga droit def sa coalition lu parti bi dal di samp sa ndënd ne da nga bëgg doon li nga xamanteni mom moom di maire te yoonu parti bi du ci ne. waaw xam nga dafa am lu ñuy wax discipline de parti so bokk ci parti dang koy jox majorité dans tous les plans. Mhm. man lool la gëm. Benno Bokk Yaakaar laa bokk président Macky Sall laay jàppale dama bëgg maire bi président Macky Sall carte am boobu gañe ko beej morom bi fas wi. Mhm.

te am naa ne président def erreur yoyu parce que lu tax du def erreur yoyu moy dëkk bu ne xam nañu kan la askan bi tan c'est le Sénégalais le plus informé dëkk bo lem président Macky Sall xam na kan la fa wara mëna tek wala kan mo fa wara mëna mën liste gagné am na ñoo xamné bo boo leen defee ci liste du ñu gagné. dañ lay jox gagné président xam na ñooñu tey président du leen du leen du leen dooleel mukk nee leen dem leen xëccoo mais dama ne discipline de parti. Mm-hmm. mooy président nee na lii laa bëgg. Mm-hmm. ñu def loolu. absolument. lii laa bëgg askanu Ngexoor ni man la ñu bëgg nee na lu ñu bëgg man Pape Diouf. Mm-hmm. parce que président moo nu jàppale tey ci dëkk bi ba dëkk bi gis boppam ci nguur. kon su ma jëlee carte beneen carte. Mhm. di ko wote feneen fu dul bu président Macky Sall su boobaa war naa ko. damay jël maire bi kañ teg ko ci loxoom ne ko président gañal naa la maire bi maire baa ngi ni sa mhm. defaraat ko comme ni nga ko defara woon bu njëkk. loolu ci lay dox. loolu ci laay yëngu. Mhm. loolu nag bu amee mais dañuy sant yàlla mais nag yenn gox-goxaat yi coow dana fa am. problème dana fa am mais nag am na benn wala wax wala buy wax ne. ñu amul baag. boo demee teen ba. ñoom rek ñoo fa ñoo fa yokkulu ñu amul baag. ñu yokkuloo ci ci bënd teen de. yow yaa ngi say baag. ah. coalition bi ñu ngi ñu ngi seen i baag. Ah, am na ñoo seen i baag ak seen i goj nag. Hmm. nga xam ne mënuñu ñëw du ñu soxla baag kër dañu ñëw di jukki. absolument dem seen yoon. tout à fait. honorable ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw nga xanaa dernier mot bi may mere mu nuyoo. waaw ma sant ñëpp. am nga 30 secondes pour def ko. waaw jërëjëf mhm. euh, vraiment am naa mbégte ci seen teewaay bi. Mhm. di wax na aussi Dakar Actu defe naa président sax da koy seetaan parce que bokk na ci muy seetaan bokk na ci waa yu muy seetaan benn sortie boo xam ne dañ may woo sax ne ma ah Dakar Actu de moom ci nga génne tey xam nga loolu rek ndam la seen kii bi dafa am solo dafa am doole. ci réew mi te aussi da ngeen di joxe euh, l'information avec fidélité. avec efficacité ak professionnel bi ngeen am loolu ñun gis nañ ko. moo tax ñun dañ leen encourager dañ leen accompagner te bëgg noonu aussi ngeen bokk ci li nga xamante ne nii mooy. Euh, média yi média yi nga xamante ne ñoom la gën a ci réew mi yéen bokk ngeen ci mais incha allah rabbi ñun pare nañu sax mun en tout cas man su ma demee assemblée dinaa fa wax dëgg Dakar mm-hmm. xool aussi di nga mën a bokk ci bagage yi ñu mm-hmm. yooyu ñu may jëkk def nag mooy maa ngi sant population Ngexu di sant population département de Mbour di sant population aussi euh, Sénégal yëpp di wax président Macky di ko naan maa ngi koy nuyu ministre Omar Youm di ñaanal Omar Youm wér ak wérle titre département de Mbour la maa ngi nuyu dëkk bi yëpp nag yaa ngi fàttewuma góor fàttewuma jigéen imam ratib bi wax naa ko sànq wax naa aussi chef de quartier chef de village jeunesse bi la jeunesse nawetaan yi aussi maa ngi ñaan ñu dugg ko ci jàmm génn ko ci jàmm mhm. ma ne leen sa nag saa yu commencé ñi nga xamante ni dañoo dëkk Saloum bu ñu romb fii nii problème la ñu am surtout heure bii nii bu bu tasee tali bi duñ ci mën a jàll boobu heureusement ba autoroute baa ngi dem ah non man question la wala suggestion bu personnel suggestion personnel bi ma lay def la man d' accord léegi léegi yooyu yëpp tey. ñu bàyyi télé bi ñu siy jàll ak oto yi correctement. d' accord loolu yëpp dañu ci gën a waxtaan rek comme ça et puis sax yow léegi soxlaatoo sa jaar biir nga ko autoroute baa fi. absolument ko jaar génne. génne nekk nii yow am nga. yow kay yow yaa ngi ci xeewal président Macky Sall. bu njëkk ba daa dem nga ko deux heures temps pour génne ko. mais léegi bon avec cinq minutes. tu pratiques traverser facilement. loolu nag sant yàlla. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di gërëm samay mbokk di gërëm aussi samay soxna di gërëm aussi waa réew mi yëpp di wax ne daal gars yi leen jox rendez-vous beneen émission. boo xamante nii danañ ci a yaatal euh, muy émission mbégte lay doon. bu boobaa